waa problème bi ñun dañ fi nekk ñu am contrat bu ñu fi indi borom kër gi ne da koy jaay bi mu ne dafay jaay aussi tamit ñun dañ ne ko ñun boo jaay bëgg nañ moom essayé nañ fi génne ku tribunal commerce débuté na ko ñaari yoon ñu dem tribunal Dakar pour génnee ñu fi pour sans droit ni titre loolu amul fenn ñun ñu toog fi presque presque sept ans nga da ñu fi génne sans ni titre loolu amul parce que bu ñu amuloon contrat duñ fi toog investir fi xaalis bu dul jeex dañ fi investir xaalis bu baree bari bëri pour toog fii di liggéey

personnel bi ñu njëkk a ñëw ñoom woo ne ma police mu ngi fi ak ay camion yow yaa ngi gis ni gis nga policiers yi y'a plus de cinquante policiers ñoo fi ñëw ñu ne kenn du dugg ci biir entreprise bi li ngeen mën mooy lu ngeen mën rawale rawale leen ko loolu la ñuy bi may ñëw gis nga ma nii ma ñëwee nii ci kaw la laa tëb ñëw suba ba léegi ñu ngi nekk ci bagage yi di jàpp di génne lu ñu mën rawale ñu rawale ko may ñu ñu benn temps benn temps may ñu ñu waaw dañ ñoo bett parce que ñun kayit bi ak kayit bii ñun yaakaaroon nañu fii kenn duñu fi mën a génne parce que juge moo ko def te ñun loolu lañ gëm donc bu ñu ko juge joxul amuñu benn droit pour toog fi bi ñu ko joxee bi ñu fi ñëw aussi ñun wan nañ leen ne leen yoon moo ñu fi bàyyi ordonnance baa ngi nii Pape Ousmane Diallo président de la cour d'appel de Dakar moo ko bind jox ko ne ordonnance 412 du 25 sept 2022 tant que ñoom demuñu caisse de dépôt et de consignation déposé fa benn garantie de 50 millions poursuivre expulsion bi donc nag ñoom loolu la ñu bofee ñu ne nag dëkk bi xanaa dafa amul yoon bi ñëwee wan nañ leen ko suñu avocat woon na leen wax na leen ko mais yooyu yëpp teniruñ ci

mais xayma bi moom mënu moo la ko wax foo ko estimer rek romb na foofu. tey bi ñu xëyee woon nañu sax pour ay entretien ak yu kenn xamul mais xamuñu fu ñu koy defee ñun bu ñu leeroon ni fii dañ fiy jóge kon wuti woon nañ pexe mais yoon moo ñu fi bàyyi léegi nag ñun li ñuy ñaan rek mooy yoon boobu moo def liggéeyam waaw bu ñu bañ a kenn bu kenn jaay sa morom jaay doole loolu rek la ñuy bañ nañu dimbale ñu jaare la ko ci yoon.